Adama Seck yi ñu leen dama kontaan ba bëgg dee ndax su doon suñ kër lañ toog duñu am cadeau ndaxte ñun suñ papa yeeg suñ yaay yoruñu woon luñ ñu jëlalee cadeau ndax dañoo sonn ñun su dul woon monsieur le maire su dul woon monsieur le maire ak ak tonton Aliou ñun duñu am cadeau. te taaliba yi dañuy toog ci seen sëriñ di jooy ñun ñu dem suñu yaay foofu di jooy rekk te duñu am kado nag man dama bëggoon yàlla na ko yàlla dimbale ba mu doon président bay dimbale waa Sénégal yàlla na ko ci yàlla dimbale te nag su demee suñu ustaas dinaa ko mu ñaanal ñu ci lu ñu defal nii ndax ndax ñun su doon moom ak fi mairie bii du am mairie bii rek du am xoolal lii rek Aliou Sarr men jàng kajoor jànken ndaxte ñun suñu woon moom ñun duñ toog sax ci mairie bi di foo foofu di foo ak suñu moroom ndax moom moo tax maire bi ñi tabax ko te su dul woon moom nag maire bi du fi am maa ngi leen di remercier bu baax yal leen yàlla yàgguloo fii. maa ngi tudd Mourou Ndaw nekk ban daara. maa ngi nekk r maa ngi jógee fii ba Saloum ñuy wax département ma ne Odor fii si village ñuy wax Jam Jam. lañ nga ñu wax mën a wax ci Talla. waaw kontaan lool Talla ku baax la lépp may nekk Saloum laa xam bu ma ñëwee fii la ko gis muy jàppale taalibe par dara par di waa fa day bu jot mu daal di génne xaalis daal di ñu ko joxe mu daal di teg sama loxo dama séddale ko booy. man am saa la jox na ma cër boo xamante ni man bu ma ñëwee man lay njëkk na ma sama waa yi naka dem man maa ngi sant yàlla mu daal di génnee xaalis daal di ma ko jox na ma séeddi na ma gars après ma séeddi ko taalibe ko loolu vraiment tey bu mu amee tey man damaa kontaan ndax dañ ku defal nitu yàlla ku defal daara defal nga daara yàlla bu baax ndax ñett moo fi nekk mooy kuy defal sëriñu daara di defal alquran di defal yàlla kon ko man amina salihan fa képp lu waaye def sa bopp nga defal kon taala lu may defar lépp lu baax dafay defal lu baax taala am na xale yu baax a baax bu ñuy xale yi balaa mi drapeau day nuyu xale yëpp mu daal na sama waay tey a ah, tey dëkk bi ba lundi bi passé la ma wax ne tey incha allah am nañu benn programme ñu war a jox fii si leen fii si mairie dañuy war a jox cadeau moo tax ma teew fi tey dama waroon a am dama waroon a jàngi tey waaye li taala wax tey jaral na ma ma ma xaar naa xaar xaar fii amoon naa xale yoo xam ne ñoo bokkoon daar dañuy ñëw fi waaye xale yi ñooñu dañuy yàkkamti ñu ngi ne ma ne kon da ngeen da ngeen di bàyyi da ngeen di dem daara ja waaw waaw xale yi waaw ah loolu lu lu am lu am solo la kon ñoom lu leen bëgg rek moom la ñu lay defal kon dañ ne ñu ñaan ñu defal leen tournoi kon jar na ñuy waxtaan maire monsieur le maire ñu defal leen ay tournoi yu baax ndax xam naa ñooñu bu ñuy jàng ba pare il faut ñuy dem foo yi daara football yi bu heure jàng yi ñëwee ñuy dem jàng beneen bu may wax tamit mooy yëlwaan bi tamit saa bu ñuy yëlwaan am na ñoo xam ne dañuy a yi gën a bu baax ñu benn waxtu nañu yool papa maanaam bu ñuy yëlwaanee sept heures ba ba neuf heures ñuy daara mi daara jàng dix heures jàng midi ba midi ñuy wàcc bu ñu jàng midi daara yëlwaane xañ waaye lii kon taal dama koy ñaan yàlla ko yàlla dafal jàmm nu mu fa mu na ma yàlla ko fi yàlla yóbbu jàmm ku baax la walaay ku baax ku xam taala xam lépp doon bis boo xam ne maanaam ndax dañ ko tuddee bisu feet maanaam bisu nooyal la waroon doon waaye du bisu nooyal bisu nooyal la tamit noël pour ñëpp ah noël pour xale yi nga xam ne ah dañ leen a fàtte xale yi nga xam ne ñi ngi ci mbedd mi te boo déggee niñ koy waxee ci kàllaama nasaraan day mel ne xale yi mbedd mee leen jur te mbedd mi jurul kenn waaye nag xale yaa ngi ci mbedd mi ndax waxtu wu ñu war a jàng ñi ngi ci mbedd mi waxtu wu ñu war a noppalu ñi ngi ci mbedd mi waxtu wu ñu war a lekk ñi ngi ci mbedd mi waxtu wu ñu war a nelaw ñi ngi ci mbedd ñooñu nag danoo ànd ak fédération Kajoor Jànqeen bi nga xam ne euh, moom Aliou Sarr mi moo fi taxawal ak ñi mu àndal pour fas yéene taxawu leen ñoom nag dañ leen cee fekk ndax boobu nekk gu ma woon maire ñu fekk leen si ñu yàgg si liggéey am ci xam-xam am ci xereñ a ah, ñu jàpp ne bis bii nga xam ne xale yu bëri dañ leen di jox ay cadeau te ñoom xëy na nit xalaatu leen wala nit amul capacité jox leen ko ñu déggoo ak ñoom ngir defal leen loolu waaye nag dañoo jàpp ne jàppale xale yi ci mbedd mi wut a ci benn fan wala ci ay waxtu ah, naam tey sama xalaat dafa nekkoon ci yóbbu leen ci restaurant bu mag ci biir Thiès maanaam ndékkeendoo ak ñoom ngir bërëb yooyu ñoom dañ koy romb rek di ko séen te duñu xam nan lañ fay joxe xéewal duñu xam naka la demee ca biir waaye nag bi ma waxtaanee ak ay nit ci biir dëkk bi ñoom ñu jàpp ne boo naree jël lu bari di ko joxe benn ndekki mën nga ko tasaare taawi ko ba mu doon ndekki yu bari ci ñoom wala nga jox leen ci yeneeni cadeau ah ñun nag ginnaaw bis bi dañu fas yéene taxawal kër xale yi loolu ba nuy def xalaat bi ànd nañ ko Kajoor Jànqeen ak yeneen waa Thiès ak yeneen borom xam-xam ba nga xam ne kër googu lañ fa nar a def mooy teeru leen mooy teral leen mooy aar leen mooy jàngal leen gëstuwaale it ngir xam lu tax xale yi ne ci mbedd mi ndax dañoo fee amul wayjur ndax seeni wayjur dañoo amul kàttanu toppatoo leen ndax seen i wayjur dañ leen dénkaane woon ñooñu cofle loolu yëpp fas nanu yéene ci biir kër googu ñu jëfe ko ci kër googu nag fas naa yéene bu soobee yàlla ah ah sàkku ci conseil de ville bu Thiès bu kër gi taxawee ñu tudde ko Mamadou Dieng ndem si yàlla si Mamadou Dieng ndax ku xam Thiès xam ne Mamadou Dieng ci ak dundam taxawu na doomu aadaw yu bëri jàppale na ñu bëri ci wàllu social kon loolu lu néew la rek ci loo xam ne nit ñi ameel nañ ko ko ci wàllu njukkal jërëjëf rek dañu tey dañoo nekk fii ci ëttu maire yi maire bi nga xamee ne mooy kër waa Thiès yëpp xale mag ak ndaw euh, tey ñu ñëw di jàppale monsieur le maire si fête bi muy organiser euh, ay njabootam euh, njaboot gi nag tey dañuy fête Noël ñan ñooy fête Noël mooy taalibe yi ak xale yi dama wax sànq ni bu fête di jot ñëppay toog di seetaan télé di nga gis doomu ministre yi ministère organisé di leen jox cadeau di nga gis waa pale président organisé ñëpp di joxe ay kado di nga gis gouvernance yi service yi ñëpp di joxe ay kado waaye am na xale yuy seetaan télévision dëkk ci réew mi am même droit que ñu ci des waaye ah seeni waajur sax dañuy am kersa xale yu seetaan loolu ndax ñoom amuñu lu ñu jox ñooñu ñooñu nag la monsieur jaboote moo tax ma ni geste bii mu def geste la boo xamee ñëpp war nañ ci bàyyi xel tey su seetee xale yi nga xamee ni ñëpp kenn joxu leen cadeau moom mu dajale leen di leen honoré kooku daf ko def pour askan bi daf ko def pour réew mi si loolu jar nañu sargale ko jar nañu ñaanal ko si moo tax tey ñu ñëw taxaw fii pour jàppale ko ci loolu xam ni defu ko pour boppam ah li muy wootee man de déggaguma fuy taale si la di woote naan kaay leen jàppale ma ci lii waaye ñoo leen jàpp ci askan bi li mu moom donc loolu moo tax tamit nit ki li mu def ñun ñu am fierté si lépp lu mu dugg ñun ñu ñëw si wetam jàpp si pour contribuer tamit si li muy def ci lu baax moom laay wax si fédération Kajoor Jànqeen nañ fi nekkee dafa nekk si Thiès ah lëkkale lu toll si juróom-ñetti junniy gone juróom-ñetti gune gone nag boo leen ah, jabootee mooy presque ah, yaa ngi jàppale communauté bi ci lu bari moo tax ñu ne lépp lu ñuy def ñun moom lañ koy sottil ndax moom it lépp lu muy def nañ ci woo incha bu ñu ci woowee dañ sawar trop ci wuyu si jàpp si soobee yàlla jërëjëf et bonne fête de Noël à tous les enfants.